enquête ñooy ñëw waxtaan ak yéen jël Sénégal aar leen ci lépp loo xam ne baaxul ci Sénégal aar leen ci ñi yàq suñu mbay mi aar leen ci ñi nga yaa xam ne ñoo yàq suñu napp gi aar leen ci ñi nga xam ne ñoo tax mënatuñu lekk suba ngoon ak guddi aar leen ci ñi nga xam ne ñoo jaay suñu pétrole ñoo xam ne waruñu leen ko jaay fexe nag ba Sénégal nekk réewu koom ci loolu lañ leen di woo dañu am plaisir am contente bu reuy am surprise bu neex suñu frère suñu compatriote un patriote ko xamante ku bëgg Sénégal la muy Bougane gay dani ñu ngi nekk fi ci Tëngéej mu ne dina jaar fekk suñu nuyu ñu waxtaan ak yeen

contrôle de l' action gouvernementale lañ fay wax waaye loolu kan moo ko gën a mën juriste bii di man ay député yu leen mën a taxawal assemblée nationale ay député doomu Tëngéej ay député yu am xam-xam ay député yu am njàngat bi yu am compétence bi des jeunes ambitieux des jeunes qui comprennent les questions de l'heure et les défis et les enjeux de la ville de Rufisque

nañu gëm suñu bop gëm suñu askan gëm suñu réew gëm ar Sénégal mu ngi leen di gërëm dén coalition aar Sénégal nak man question bi ma bëgg poser sénégalais yi rek moy nañu xol ci ñi nga xamanteni ñoo constituer seeni liste yi est-ce que waaw wala déet mérité nañu de assemblée nationale pour ñenn ñi wala ñenn ñi mérité nañu dugg ci nationale. je pense que question bi su fekkee ci angle boobu rek lañ ko réponse bi dana yomb choix bi tamit dana yomb te choix bi inshallah dana ñëw ci coalition Sénégal ngeen votel ko ñu am la majorité à l'Assemblée nationale suñu démé Assemblée nationale ak ñeneen ñu ñu nekkal dans nos listes danañu nekk ay député utile ba yeen li ngeen bëgg ci député ngeen mën ko am mu comme niñ ko waxé ñu am une assemblée nationale de rupture